Birane lu baa ngi ci mbuul maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara baax ñoo jara falal ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay moo ko waa Bantamba TV sant ah, seen émission Bantamba cumbukaay te nag amati beneen naanaan eh, jóge fi nga xam ni moom mooy géejuwaay du koy wax eh, Lirou Diane Lirou Diane maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw jërëjëf Serigne Touba jaram maam Cheikh Ibrahima Fall Ndeye Kumba maa lay fay borom Bantamba TV. ah mm. ay ndey Kumba <laughs> ndeysaan euh, nee naa ko jigéen bu mën góor la jayuma la nag li ma gis rek laa wax. Mhm. jigéen bu mën góor ba pare am fulla am fayda ci li ngay def. Mm. te tubaarkàlla su ñuy wax journaliste bu jigéen ci wàllu làmb mhm. wala sport. Mhm. la ciy boole soo nekkul pay ay deux. ñëpp xam nañ la ci loolu am fulla am fayda la. xam li ngay def xam fi ngay teg sa tànk waaw tagguma la li ma gis non non non non jarul li ma gis yow rek laay wax ah. li ma gis yow rek laay te ba ma lay xam du tey jamono yi yaa ngi wal fajiri mm-hmm. ah? di liggéey journaliste mm-hmm. ah kon tubaarikaal da ngaa yow te boo xëyoo xëy rek nekk jël micro <laughs> dina non non non non jarul rek xëyoo xëy rek jël micro kon dafa am ñoo xam ne ñoo xeexee rek jël moo tax ñuy def ay tojaange def ay erreur xam nga. Ah. loolu comprendre yow bokkoo ci genre ñooñu. mais erreur nag ci liggéey ci liggéey la bokk. erreur bi ak liggéey bi ñoo bokk la dégg ci yu mm. la ma gis si yow laa koo dégg ci yu ñàkk fayda mosuma koo dégg ci yenn non non non non. Mm. vraiment li ma la xamee woon mooy li journaliste ak fulla ak fay leen daal laa la xamee woon moom mooy histoire <laughs> histoire moom bëgg nga ko moom. waaw kenn doo tooñ histoire moom tubaarikàlla macha allah ndey kumba rek ak histoire laa ilaha illallah maa ngi gërëm ñëpp nday di la nuyu di nuyu waa Bantamba TV di nuyu sunu père Bekaay mhm. vraiment di ko ziar bu wér di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko fi ndax nee naa fu làmb àgg tey ndeysaan am na ci paar mhm. ah vraiment kooku euh, icône la ci làmb mhm. icône la ci làmb ndax am na lu mu ci def daal tubaarikàlla macha allah fu làmb tey àgg tey am na lu mu ci def waaw di gërëm booy waa moo ñoom Modou Mbaye ba Modou mm. ah sama rakk ja Matar mbay ah borom America borom New York City mm. Matar ah maa ngi koy at at ja xaritam boobu mu nekkal fa ja ak benn grand frère bi nekk foofu maa ngi koy nuyu Matar bu baax a baax a baax mm. ñoom ja di nuyu xale yi nekk waa Bantamba TV yëpp di nuyu waa Guédiawaye gi ma jóge di nuyu sama patron suma xarit Modou Dieye Sène di ko ziar ah ñoom Abdou Aziz Ndiaye ñoom Pape Mama Fall Mm, ñoom Andaw mm, euh, Moussa Fall at kan euh, Baye Ndiaye Kor Ndiak. liiru ah, xanaa soo gërëmee nii pare fin bi doo gërëm de. am non non damay damay nuyoo. ah waa nuyoo damay nuyoo ah. di nuyu euh, waa Guédiawaye gépp bàyyiwuma kenn ba ci mbër yi Balla Gaye 2 grand champion sama rakk ñoom Lac de Guiers ñoom Alioune Seye ñoom guy Gui ñoom Marley. ah ñoom Jackson xale yëpp ah yi am combat ah ñaabu ndaw caatu daaw dafa xale yi am combat Guédiawaye at fils de Balla su ma limee rek damay juum nuyu naa ñëpp ziar ñëpp Guédiawaye ci kaw ci kanam. yow koy lim nga ñëpp. voilà yàlla nañu yàlla defal jàmm Guédiawaye ah. amiin voilà. ok euh, Lirou. li ngay wax sànq rek Mario bu ñu xamante du du tey. mais bi ma la ñëkkee gis ma ñëkkee gis hmm. euh, gën la xàmmee mooy si yoonu kii bi. mooy avenue départ accident ba. sunu accident ba ndeysaan hmm. bi laay gis nga moo tax may la ndey kumba ndeysaan hmm. lu yàgg dëgg la. 2009. je sais même sunu accident ba ndeysaan. Ah, te yow ñu doon dem si nga bokkoon ndar maa ngi ziar ñooñu di leen ñaanal sama gaay yal na li yàlla xaare àjjana ku ci mel ni mama ba góor a sekk pa père góor a sekk seex seex sëy Mamma Ba ah maa la di ñaanal yàlla na leen yàlla xaaral àjjana. amiin ndeysaan yaa ngi wax lu yàgg soo soo ci duggee rek ndeysaan sama yaram dafay daw ndey sama xol dafay kii daal ndeysaan ah yàlla na leen yàlla xaaral àjjana mm, daal. defe naa loolu sax moo gën a freiné sa carrière la. waaw waaw waaye waaye sant yàlla nag. Mm. sant yàlla baax a baax a baax a baax ñoo ngi sant. baax a baax am na ay métiers yoo xam ne soo si sportif jaaree rek day xaw a. metti pour mu retrouver waat. dëgg ba léegi dafa dafa dafa dafa def arrêté sa carrière. waaw sant nday nan sant yàlla bu baax a baax. Hmm. ndax ña dem gënoon mu leen. man fi nekk daf ma yàlla amee blessure ba jóg. ma ne man dafa lu yàlla lu tax mu bàyyi ma fi. Hmm. ñoom defalu ñu yàlla lu tax mu yóbbu leen. Hmm. kon nag man lu mu am damay sant yàlla. te dee ñaanal yàlla xaaral leen àjjana. waaw mais liiru liiru jaan. waaw pourquoi liiru jaan liiru jaan. waaw liiru surnom la rek liiru nday mais pourquoi choix boobu porté wu. waaw si liiru jaan pourquoi jëloo sëll bu ndaw wala leneen ak leneen. Euh, dama woon benn grand bu nekk Guédiawaye bu ñu wax xam sax ndax yaa nga ca sport moom lañ doon wooyu liiru jaan. Hmm. grand Mbacke. moo nekkoon écrit plateau. Guédiawaye plateau. Hmm. daaw dégg écrit plateau bu ñoom Ndiasse ñu nekkoon Ndiasse. Hmm. waaw écrit boobu fa la grand bi nekkoon Mbacke. ndeysaan nag nekkoon grand tuuti ba pare nekk gërëyee daal. voilà. tamit man fa laa jaaroon tuddee ko sama bopp grand bi. Mm. mooy Mbacke. moom mooy jóge woon na mosoo jóge géej wax demoon na fi sax écurie Fass nekkoon na sax Fass grand Mbacke mm. boobu. nekkoon na sax écurie Fass après. Mm. nekk champion ah ndaanaan bu mag a mag a mag a waay. fa la liiru bu jóge waay. liiru sa carrière bon liñ siy wax. mën na bëre mën na bëre euh, bëre na bërewul mais li ñu gën a remarqué mooy liiru pratiquement ci dernière année yi li muy def ambiance moo ëpp lu muy concentré wu si carrière wu mbërëm. waaw nag xam nga ñun nag ne ah, nekkatuñu ay xale nag mbay mbay nekkatuñu ay xale ñun ay magum jëm nañ léegi te ñun dañuy am suñu rakk yi ñoo ngi màgg léegi dañuy fexe ñu. mais am mag te ni ngi si làmb ji ba tey. d'accord d'accord xanaa ki euh, ki reeree ki ki euh, ndek ki ndek reereem ki xam dafa jël ndekkam reeree ko xanaa hmm. kooku ngay wax. kan bu ñàkk jom bi. non man liiru man man ma lay posé ay questions. waaw non non da nga ne ma am na ñu mag ñu nekk maanaam am ñoo xam ne. ni ngi fi ñoo la mag te ay champion la ñu. mais ba léegi ni ngi si làmb yi kon. pourquoi yow nga wax ne yow na nga jëm yooyu. d' accord dëgg la am na waaye am na si ñoo xam tamit ñoo ci làmb ci tam ñàkk fay dañ nekk fii di xastaate di ak tooñ. <laughs> am na fi ñoo xam ñoo ma téeméer te mun na maa émission bi soo ko naree def ay affaire gaaruwaale. non de da maa laaj rek dama laa wax dama laaj dama laa wax. non pour def sa yow. waaw pour nga def sa bopp mag te ñi la fi gën a. mag ci islam non tey jii ku ne loolu ngay yàlla nekk mag. man d' accord nekkuma mag mag bu ñuy wax ma bëggee def may mag yenn mag tamit ah damay nangu am problème. xam nga sport xale moo koy def. Mm. waaye man suñu tëbee ba def ma mag yenn mag yi am na ñu nekk ci làmb ji ñoo xam ne ñoo mag damay nangu dama nekk sumay rakk tamit uuf leen. tey ji xam ne loolu moo tax ñu bëgg ma jël yóbbu ma ci benn âge bi tamit damaa nekk su may rakk te ñooñu ma nekkal ñu rakk yooyu ma nekk ñoom ay champion lañu ay ndaanaan lañu su diggee man seen mag laa te c'est normal seen mag laa léegi nag loolu moo tax nit ñi ne xañee moo ñoo tax ñu jàppee ma mag ok du def mag at at at bu ñàkk fayda bi may euh, nekkanteel di kii ah, su waxee benn mën a ko fukk ñàkk fayda nga xam ne moo mag téeméer yoon mën na maa jur Hmm? ñàkk fulla rek daa eh, daa daa reeree ndékkeem ndékkeem la jël rek reeree ko. Eh. léegi nag su ñuy gis may kii ak yow dañuy yaakaar man ak moom ay génération la moo mag téeméer yoon. moo mag liiru eh, saison bi jeex na ban ban ban bilan nga def ci écurie Guédiawaye dafa mel ni ren neex na wu leen de. ankay tubaarkalla macha allah. Guédiawaye à part waaw Guédiawaye ay champion ñoo fa nekk xale yëpp ay champion Guédiawaye ay ñoo fa nekk ay ndaanaan ñoo fa nekk. xam nga fan yii sax am na benn wax bu ma dégg fii la woon yaakaar na naa lu ko waxee woon muy rog mbalax dégg naa ko fan yi mu taxaw. waaw doo ñëw si sa bilan non non bala nga bilan mooy wax mu wax bilan. non bilan bi laa wax nga wax yow ni yéen seen saison ren neex neex la leen balaa boobu non non ñun waaw dama lay wax nag yow yaa dugg foofu ci wàllu làmb ji moo tax ma wax loolu waaw non ne la sa bilan waaw dafa am bu bëgg wax foofu tuuti rek waaw léegi après xam naa di nga tontu rog mbalax may ma tuuti ndey kumba Ndeye Kumba soxor baaxul man yenn yi dama ko jàppee soxor ak iñaan ak inési rog mbalax tey moom fii la nekkoon ci làmb ji di bëre ah lan la fi def def fi dara tapet la daw la fi nekkee woon daw daw daw daw su taxee mu nekk ci carrière yu jàmbur di salteel carrière yu jàmbur yi ñoo ñoo gën palmarès ñoo ñoo gën carrière. mais équipe nationale ko fa nekk doo cuune de. waaye waaye ñun équipe nationale ko fa nekk doo cuune équipe nationale euh, du bëri dóor bëri la. waaye moom dama ne la ragal la tapet la la tapet la moo tax amul dara ci làmb ji ci arène bi. amul dara amul dara amul dara ci làmb muy xas ñoo ñoo ko gën. ñoo ñoo gën demee ci làmb ji yow def na fi documentaire. am ay prise génne fi ay dama laa dama laa tagg kenn waaw non mais tamit du ma bàyyi tamit ngay wax koo xam ne non déglu ma mais génn na ay prise yu bëree déglu da nga may déglu rek waaye man léegi la may déglu sa plateau waaye da ma invité waaw la champion la roog mbalax champion la ah? simple de olympique la waaw d'accord champion la ci waaye su taxee arène bi lan la ci am arène bi defu fi tous tapet la daw la fi nekkee woon daw ragal la kon su taxee fii naan Balla Gaye mënatul la baaxat mënatul la mel ni dafa yenn yi soxor lay lay nuru wala iñaan wala iñaanti ah moom tapet la woon ba muy man nekk ci digg ndëndam nekk ci xale lan la fi nekkoon ñu koy dàqe mooy daw di génn saako loolu ba tax mënut a lekk yàpp Moussa Dioum yàlla ko yàlla xaar àjjana moo dindi woon maa soo aram yi nañu dimbali tapet la na bàyyi xasta bi at du nekk ci plateau yi di yekk yi lu mel ni xam ne Rongelaax mooy kan sëkki yi Rongelaax mooy sëkki yi yaa gën a wax ci Balla Gaye nag ñu noppi ndax respect bu ñu na nañu arrêté na bàyyi Balla Gaye tout tranquille Rongelaax mooy kan de mooy wax ma naan Tyson ay mag la fi daan affaire soxor yooyu mooy kan moom tey su baaxoon wala mu mel na mu war a mel Gris Bordeaux fu mu tuddee dina ne Rongelaax mais xam dama lay wax non déglu ma tey su meloon la mu waroon a mel soxorul wala iñaanul Gris fu mu waxee dina ne wax rog ma lax waaye soxoram ak iñaanam rek moo waral loolu ndax lii wane na ko ah naan Tyson def fi dara Tyson ay mag la doon daan loolu soxor la Tyson champion bu tey ñooñu ñoo fi nekkoon ay champion ñu Tyson doon daan ñoo fi nekkoon ay champion ah naan Balla Gaye mënatu la baax ah loolu loolu affaire soxoru iñaan Balla bu ndaw ah. Balla Gaye di xale bu ndaw li Balla Gaye am na ko fekkee am li Balla Gaye def ci làmb defu ko moom li Balla Gaye def ci làmb moom defu ko deful li Balla Gaye def ci làmb xaaj ba xaajaat ba xaajaat ba xaajaat ba xaajaat defu ko après toog ci plateau bi yi rek ñu ne ku moom xar bi rek nga bàyyi buum bi rek yow rek ma la mooy kan c'est qui c'est qui ça waaye c'est arrête waaye dañu àggaleel sa question Tyson di champion def fi lu ne ci làmb yu mën a taxaw naan Tyson ay mag la fi doon daan mag ñooñu Tyson doon daan ñoo fi nekkoon tey ay champion moom nag dana mën a yëngal boobu moom moom boobu mun leen a yëngal moom ah boobu mun leen a yëngal ah man yenn dama xamul soxor la xaw ma iñaan la xaw ma iñaanati la ba nu dundee ma soirée la dem France toog fa ah ñoo fi ñu tëkkale plateau mu nekk fii di xasee c'est kii man ba laa war a ñu may nuróo rek ba fu ma déggati nit na ma da ngaa góog roo mbalax barke Sëriñ Bamba Mbàkke daa jàppante ak moom. roo mbalax mooy a tooñ ba bëgg a dee boo yàgg na wax mu roo mbalax la dafa mel dafa soxore Balla Gaye billaahi wallaahi wa taala dafa mel dafa fois du la première fois du la deuxième fois saa yoo mosee wax Balla ci Balla lu baax. <laughs> moom nag fexee baax waay wala mu. xolam boobu mu raas ko. lii yenn yi laa ko jàppee man. leeru comme ni ñuy wax rek parlons peu et xam nga loolu léegi yaa ne xaw ma la je suis professionnel professionnellement émission bi du lii parce que. yow oh, sama yoon nag yaa ma <laughs> li nekk sama xol laa yaa dugg ci la yaa ma invité te fii la ko waxee bantamba bii la ko. waxee waaw mais mais nekkul émission bi moo damaa sawar mais nekkul woon émission bi xaw ma bu mu doon waaye bantamba TV la ko waxee. ok xaw ma la ko mënta doon waaye bantamba ko. waaye bi bi ma woowee yow damaa sawar pour ñëw pour bëgg a waxaale sama doléance la nekk sama biir xol du lenn lu dul loolu dafa damaa ko muñ muñ munu ma ko muñ <laughs> non non du caaxaan je te le ko muñ muñ munutuma ko muñ rek ma la toog ci plateau bi tallaxu rek <laughs> ah di tallaxu rek ñu koy ku moom xam mu bàyyi buum ah lan la c'est qui ça c'est qui waaye sa hunta léegi ñëw ma seen bilan àggalal sa question. waaw ñëwal seen bilan oh. équipe seen <laughs> équipe Guédiawaye bi seen bilan bi. waaw tubaarkàlla macha allah xam nga Guédiawaye ay champion ñoo fa dëkk. ay ndaanaan ñoo fa dëkk. soo waxee Balla Gaye 2 doomu bu mu nekk champion nekk xale bu ndaw bi muy am vingt cinq ans la jël roi des arènes Balla Gaye 2 bi muy am vingt cinq ans. lii te jamono non may ma tuuti ma laaj. foog ma laaj non bi bilan saison bi laa dama lay déglu dama lay wax. Balla dama lay wax. dama lay wax. c'est que dafa am lu nekk sama xol bi. waaw mais lépp lañ ko mën a tuuti nay mais lépp nga bëgg a yebbi si biir émission bi. waaw mënul nekk fii lañ ko waxee dañuy wax kon question yi war question yi mën a war a ko du ma dama lay wax li nekk sama xol ba noppi. Balla Gaye bi muy am 25 ans la jël roi des arènes boobu tey ñu fi nekkoon am na ñoo xam ne tey mbëri woo ci wax ne ko bëri la yéexee Diop Yékini wala kenn mooy la ay conseil la soxla da nekk fi nekk champion comprendre nga champion yi fi nekkoon tay Balla Gaye ñëw bëre ak ñoom ñu mag ko téeméeroon nekk xale bu ndaw comprendre nga tey kon sooy wax ci Balla Gaye da ngay wax loo xam ne lu baax la ci Balla Gaye ndax Balla Gaye champion yi fi nekkoon Balla Gaye dafa ñëw daan leen voilà kon nag Balla Gaye du daanu rek ku nekk yëkkat sa làmmañ dara di wax nañu dimbali je arrête tey jii soo nee Balla Gaye 2 da lambu géejawaay da nga naan Balla Gaye 2 ndax fu làmbu àgg ci géejawaay Balla Gaye 2 dafa am lu ci liggéey ndax moo njëkk indi roi des arènes di ñaan yàlla keneen indiwaat ko fa xale yi indi ko fa comprend nga loolu mooy affaire bi bilan bi da may ma expliquer <laughs> xale yi bëre nga may wax wala ñuy waaj ba champion yi nga soo nee Balla Gaye da nga naan Lac ne guy gi na ñoom Sakees wax ñoom Alioune Seye 2 jum seen rakk yi ñoom Marley ñoom Jackson ñoom Mbaytin ñoom Eumeu seen Junior xale yaa nga fa ñoom caatu daaw da faal révélation bi war a ñëw. kon seen saison baax na. donc tubaarkàlla macha allah. baax na ñoo ngi sant yàlla. ndax am na ñoo xam ñoo leen tane. comme ñan. bari na bari na fi. waa Fass wala xaw ma de sama yoon nekku si géejewaay laa wax am na ñoo xam daal ñoo leen tane ndax ñun suñu xale yi xale yi bëri na. wala waa Thiaw su man ñu bëri xale yi bëriwul tamit <laughs> euh, su man ñu bëriwul tam xale yi bëri na ndey kumba ndax tey xale yi nekk géejewaay tubaarkàlla xale yi bëri na xale yëpp bëri na ay ñoom ñaamu ndaw ah, ah ay ñoom ndigal caatu daaw da faal xale yi ñoom ñoom Mathia Perera. ñoom Youssou Ndour. ñoom Youssou Ndour tubaarikàlla Youssou Ndour la tëj saison bi. champion la ndaanaan la. te xool ko moo moo tey jii Youssou heure nee na lam moo tëdd waaye Youssou ndey. Guédiawaye am am na révélation yu fa nee de tubaarikàlla macha allah ku yóbbu nañu jàkk te ba ñëw piis roi des arènes mi ñuy ñaan yàlla mu duggaat biir géej ba te dina fa duggaat. ka moo indi. Ah, ah tubaarkàlla ña fa nekk mënuñu. xanaa xale yi nag xanaa xale yi mag ñu nag. mag yi comme kan. Balla Gaye fa ñoom la daje na. non Balla ba pare. Balla laal na. laal na roi des arènes ba pare. ko jëlaat. Balla waaw. ok na ko jëlaat. ok waaw moo gën. ok moo gën soo waxul ok la wax. mun na la dëgg la dëgg mun na jël roi des arènes. guy gi ak guy gi. lan la looy rey. guy gi war a jël roi de sare. xam nga man sama émission man ci sa émission yaa ma invité nday Kumba yaa ma invité yaa yëkkat sa téléphone yaa ma suma jigéen nag mu yàgg ñu dajee États-Unis barki de moo njaay yàggul dara. <laughs> astafurlah. non jaru ngay de man sa émission xamu noo sa émission ko jëlee ak noo ko émission waaye yaa ma invité <laughs> soo ma invité nag damay wax nekk sama xol. waaw mais xam nga yow dama lay invité wax la dama laa posé question ngay xaabaabal. di dem ci leneen question yi ma posé tontu naa la ci lan nga ma wax. mais non mais da ngay xaabaabal di dem seen mais alhamdulilah. tubaarikàlla macha allah am na ñoo xam ñoo leen tane téeméer doon xale yu bëri nañ daan ñii daan nañ ñii daanu nañ. waaw léegi. voilà wa d' accord. li ci kanam moo dàq nag mbëri mag yi am nañ combat. la dëgër woon na bëri. di ko ñaanal yàlla may ko ndax. Balla Gaye war na bëre. waaw Balla Gaye dina bëre incha allah rab ñaanal leen ko yàlla defal ko jàmm ba mu ñëwaat ak jàmm ndax ñuy ratatatake wax tëj seen làmmeñ ñu tëj seen làmmeñ ñu nga xam ne ay tappat lan daw kuu leen lan daw dem Paris nan ñu dimbali ah j'arrête Balla Gaye champion la ndaanaan la ku ne fàdd leen te xale yaa nga fa saakees tamit tubaarkàlla ndaanaan la champion te mu ngi ñëw xale la ay ñoom caatu daaw dafaal ñaabu ndaw. léegi si Balla Gaye boobu. moom te nan la war defaraat pour mën a ñëwaat nekkaat au top parce que. son son cas est critique. Euh, que. comp critique pour la maanaam. non non non non critique pour lan day waxal. son cas est un peu critique. waaw pour lan. non maanaam. performance bu ñu gisoon si Balla Gaye. jékki-jékki mu def benn chute libre. waaw. contre performance yi di tegle naa dem na fi beneen dafa gàddaay waaw ñëwaat situation bi changé wul ba tey non victoire défaite victoire défaite te ku xam Balla Gaye da doon teg la ay victoire di dem comprendre nga foofu laay waxee mais est-ce que moom euh, li fa nekkoon mu ngi fa ba léegi ak su fa nekkulee lan la war a def pour loolu ñëwaat mais tout temps ngeen wax xale la Balla xale la mais at bu ñëw at bu ñëw sa at day yokkaat. d'accord waaye bu leen wax ni que Balla xam nga koy xale. waaw Sa Thiès mu ngi tuddee Sa Thiès xale. mais bul comparer Balla Gaye ak ak xale Balla Gaye du xale quoi qu'on puisse dire du xale. non si. non xale la ah, si d'accord d'accord sport. dootu xale. lu tax non xale. su doo déggee ma ne naan Sa Thiès moo nekk na xam nga leen moo tax ngeen bëgg leen def Balla Gaye xale non non non ba xale non may may tuuti c'est sport du xale waaw nag xam la ma waroon day Balla li mu waroon def ci vingt ans da ko ñëw def ko cinq ans est-ce que loolu nekkul ne waaw may tuuti est-ce que yaram bi nangootu waaw may ma ndax xamal tax carrière bi ñi mu ñi mu bëral ci cinq ans yi ngay xool ñi mu bëre ci cinq ans yi ngay xool champion yi fi nekkoon yëpp dafa bëre ñoom cinq ans yi daan leen dégg ci roi des arènes. kon yaram moo nangootul ko non non bul ne yaram ko. daf ko sëf loo xam ne xëy na ak noonu tudd ko kon xëy na. Balla. moo tax mu defoon performance boobu yëpp. da nga may déglu mooy nag Balla da koy bàyyi ñu déglu da nga ñuy ñaanal. yàlla defal ko jàmm may ko wér at wérle at ñi ko jàpp ñu bàyyi ko. man ko ko jàpp. waaw sa yoon nekk ci xamoo. non mais Balla Gaye ngay sa yoon nekk ci loolu. waaw ma mu bàyyi na ah. ko jàpp wala boog ñi ko jàpp. loolu da la wax nu bàyyi ko. dinañ ko bàyyi boobu ba léegi ñaata at ko jàpp. ñi ko jàpp dinañ ko bàyyi ci nii mbaa xale bu ndaw la toll ko fu muy amee fu muy ñàkkee ku nekk nag su la neex nga yëkkati sa làmmiñ di ratatat di wax waaye ku a fi wax loo ko. mais ma li ma jaaxal liir Diane pourquoi yow nga bëgg jël Balla Gaye rek nga ne kenn ko wax dara. kenn ko def non non parce ma critique bañu ma critique. mais yow yow laa bañ. non xaste non non xaste dafa am ñoo xam ne ñu toog ci plateau di xaste ba ñu ma mais yooyu ni di xas tey eh? critique xas euh, ki ma xas moo def li tax ma xas ko moo ko def ma wax ko moo ko def mais ko xas teewul dafa ah, critiqué euh, euh, ma dafa ma critique de waaye xas tamit moom dafa taxaw ne Balla Gaye mënatul a baax loolu la mais moom sportif de xëy na xam na xam na xam na sportif boo xam tapet la ragal la Anière rek la nekkoon ci arène bi ci digg arène bi Anière ragal tapet ñu doowu dóor ko ba dindi mansoir am Balla Gaye wér na léegi carrément parce que la ñaanal leen ko yàlla ko jàmm. ñoo ngi na kon ba léegi mi ngi lay pare. mi ngi defar ba léegi ma ne la pare noonu pare ñaanal ñu rek yàlla defal ñu jàmm. te ngeen bàyyi seen wax ji non ñaanal mi ngi defaru kon moom boobu léegi mi ngi defaru kon moom kan la fas yéene pare defarum bi. day kumba day kumba yow laay waxal. Ah, man maa lay dégg. waaw li may wax ñaanal leen ko yàlla defal ko jàmm. ñoo ngi defar ñoo ngi suñu ndox ko defar ah bisimilah. xanaa Balla moom à chaque ma nga gis Balla Gaye ndey xam nga yow dama leen la ku baax nga. waaw non ah, mais mais ça va pas dire que du ma la du ma la laaj tamit. waxuma la ma laaj la ma laajee. moo tax ma ne la kan ma wax la. waa ma ne la Balla kon pare na léegi pour bëri ak Eumeu Sène léegi. incha allah ñaanal leen ñu yàlla defal ñu jàmm may ko wér. ba nu ñëw du sañoon wër na wër na carrément oh, nday li ci kanam rawul li bët wax baaxul tey am na yoo xam ne ñu Balla euh, da koy yokk jom ñu nga xam ne ñoo nekk ci tuuti di rattatat yéene wuñ ko jàmm duñ wax ci moom lu baax loolu day yokk Balla Gaye de jom yokk ñu ñu jom ñi nga xam ne ñoo nekk ci tuuti rek di wax musu duñ wax ci Balla Gaye lu baax wax ñuy toog ci plateau télé yi ratatati rek di wax te yaa ngi toog si plateau di wax. man lan laa wax man suma ma rek laa waxoon. ah yow kay yow kay yaa ngi laaxaale ñëpp. ki ma wax kay kenn nag moo ko roog mbalax laa wax. moo toog ci plateau fii Bantamba TV di yekk Balla Gaye lu mel ni xamee naan mënaguloo baax ak eh, moom moom moo mënutuloo baax. roog mbalax ci boppam non moom pare na carrière am jeex na. su parewul nu muy def. dafa matal mu dem daa baaxatul. moo taxoon mu dem de du loolu de ko dóoroon ci ay mâchoire yàlla ko yàlla xaare àjjana mu mâchoire bi déboîté. <laughs> déboîté waaw. Moussa Dioum moo ko dóor ci mâchoire kalaaf boobu kay kenn du ko fàtte ak tonnerre xam na ton ay kalaaf boobu kenn du ko fàtte nañu dimbale j'arrête looloo tax mu bàyyi làmb ji. ok yenn yi soxor laa ko jàppee man soxor ak iñaan ak iñee ci Tyson grand champion def fi lu ne. mu naan taay seen ay mag ay mag rek la doon daan. waaw liir duñ jàll waaw liir est-ce que euh, pratiquement gis nu benn combat bu mag ndax combat yu mag yëpp. ténor yëpp ay blessé dañoo blessé ba dernière minute ñu blessé. waaw léegi loolu. pour yow yow mi nga xam ne mbër nga champion nga ndax xam naa sax ñu a wax ne doo champion ndax su dul loolu tey nga yàq ma lu mel. non man loolu ngay wax man ma neex mën naa la ko wax mais après tontu bi moom laay sóoraale. Ah, de ma <laughs> léegi loolu am na sax ba dem na si sax ba amoon ay combat yoo xam dem na ba am ay coow. Mm-hmm. ba nit ñi Euh, dugg si seen loxo bu wut si ay ay nit ñoo xam ne ñu ñëw pour def si tànku jàmm ba diggante promoteur ak mbër bi ay xëccoo dem dem na ba am si. léegi mooy combat ñoom Ama bi euh, combat. moom Gris Bordeaux Gris Bordeaux bi. waaw kooku Ibrahima Diop moo ko tëggoon Ibrahima promoteur bu sumu xarit la. mais loolu rôle CNG parce que nee nañu. CNG amul woon mise maanaam amul woon assez de caractère ba mbër bi toog di imposer ne du ma bëre dinaa bëre dina duma ma bëre du ma du ma bëre. ba CNG. Hmm. dafa mel ni amatu si woon solution si par rapport ak situation wu diggante Fass ak hmm. promoteur bi. waaw xam nga loolu tey euh, benn affaire moo ci am. loolu loolu à qui la faute. CNG. CNG moo deful liggéeyam. waaw lu tax. si su defoon liggéeyam du demee noonu. ba ma toog ne du ma bëre. waaw ak app bi laa ko bëggee. waaw c'est sensé la loolu sensé la. kon su nekkoon Alioune loolu demee noonu. kan kan su nekkoon Alioune Sarr kooku tubaarikàlla macha allah sunu papa jooju yàlla na ko yàlla defal jàmm. kooku dafa amoon benn caractère bu nekkoon ci moom <laughs> yaakaar naa ni <laughs> su doon moom la du demee noonu déedéet. Bira Sène amul caractère boobu. non non de question ñàkk caractère. waaye dama ne da nga ma laaj si fët bi ci kan la may la ci moom la. ci CNG la. Gris Bordeaux dafa euh, dafa déposé woon guérison. Mm-hmm. ah combat bi dafa yàggoon. trop metti Ama Baldé nekk xale nekk champion toog cinq ans bëriwul. kooku gën kooku gën a ah. perte ñëpp. ah kooku gën a perte ñëpp mu affaire bi metti trop trop trop trop mu toog cinq ans bëriwul comprendre après Gris euh, déposé guérison su xasee ba am xanaa dat war naa. di tax nag moo eh, dem ba ne pour ñu renvoyer waat ko pareegul ak yow moom moo ko xam moom moo ko xam man xaw ma ci dara wax dëgg yàlla loolu moo ko xam ak. est ah, man pour man xam nga lépp. non non loolu xaw ma ko ndax sama yoon nekku ca bokkuma yëkkati faas dëkkuma faas. sama yoon nekku ci loolu. yow yaa ngi ni di wax si waxu rek mara te yow. bokkoo faas te rek mara wax la waa li mu tudd Balla Gaye moo tax. moo tax li mu wax li mu wax Balla Gaye Géejawaay la wax Balla Gaye muy Géejawaay. la dëggee du Géejawaay. an kay. ah waaw an kay. Ah, léegi nag. Balla Gaye soo waxee Balla wax nga la dëgër wax nga guy gi wax nga saa kees wax nga ñoom Aliou Seyda wax xalaale xale yi ci des su fekkee dafa am lu muy wax na ko wax dafay écrit ba mu ne. te bàyyi mais lan nga gisee VIP yi nga xam ne chaque instant. man dafa mel man da nga ma waxoon da dox te àggale woo ci affaire CNG bi. waaw demal dama ne la ci affaire CNG bi dama ne la kenn du fët ku dul sa euh, président CNG ñoom la. Bira waaw. tey jii Gris su déposé Grisom nga am nu mu demee tey jii war na mën a woo pour mu expliquer ko li am surtout loolu rek mooy wax Ibrahima Diop tamit tëggoon affaire métti ci moom mu yàgg lool. Gris Bordeaux li taxaw mu taxaw ne euh, ñu may ko bëreegul àpp bi dafa dafa gàtt moom moo ko xam ñun xamuñu ko noonu la demee ñoo ngi koy ñaanal mu tane jàmm ba dellu ci moom it ci ay activité am surtout loolu mooy affaire bi nag. mu ñëwaat ak jàmm di ñaanal promoteur tam journée bi àgg jàmm ba mu réew am ci réussir muy Ibrahima Diop. di ñaanal ñoom euh, kii Baye Ndiaye ak Buraax làmbam ji muy waajal euh, war a war a dem signature ba Gambie ñoo ngi koy ñaanal yàlla làmb ji mu réussir ak jàmm te àgg ak jàmm ndax dafa tëgg ay champion yu mag a mag tëgg ay ndaanaan yu mag a mag a mag a mag waaw ku doon Amath Sène ah Tafatine xam nga ne combat boobu tubaarikàlla njar ndéem ah nga jóge fa jël marle boole kaak mbay guy gi ah marle nekk doomu géejawaay kooku combat bu neex la nga jël ndigal. boole kaak euh, benn booy booy bi dëkk yaraax nu mu tuddati combat bu kombaa bu neex la ah macca parara nga jël ko tamit boole kaak euh, booy bi euh, Jacob ah ndigi ay combat ay combat yu neex ba pare jël xale yu géej way tëgg leen affaire bi dama cee kontaan mu neex moo tax ma koy ñaanal réussir ak caatu daaw dafal jël caatu daaw dafal tamit ah xanaa waa géejawaay la tëgg waaw tubaarikàlla ma sax doomu géejawaay la bàyyi doomu géejawaay la loolu mu def dafa nice ah di ko ñaanal benn combat bi tamit mu am réussir ak jàmm muy diggante Ama Baldé tamit ak Modou Lo dégg naa moog léegi ni ko laaj dañoo kii ñoo ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm waaw. combat boobu moom dafa a taxaw. dafa a dafa war a dafa war a eh, dafa war a àgg. Ama Baldé Modou Lo. ah waaw non ah, taxaw na du am na dëkk. non ñaata lañ fi jàpp dëkk yàlla ci yàlla def euh, ndox mu sedd rek tam àgg jàmm rek yàlla loolu rek lañ leen di ñaanal ñoom ñaan ñëpp yàlla defal leen jàmm ñaari mbër yëpp ñu wér ak jàmm loolu leen di ñaanal. Mm, mbër yi nga xam ne chaque instant ñi ngi blessé à la dernière nii nii wax naan ay tappale la ku si jekku sa morom rek nga ne damaa blessé dem wuti. non man nag euh, gis nga Ndeye Kumba ci benn côté man gëwuma loolu ndax xamoon tax gëwuma loolu mooy euh, tey ndey làmb dafa metti Ndeye Kumba làmb dafa metti ñu fay la jox la avance ah jox la avance nga dem nekk di entraîner di préparer di préparer di préparer ba dernier moment nga am blessure. nga am blessure nga bëgg ko bëriwaale kenn doog laa gis moo fi doon def muy Balla gay 2 moo doon entraîné ba am combat ba combat bi jege si mu blessé du ko wax kenn. waaye léegi de moom defatul lool non non dafa dama la jox Ndeye Kumba. léegi defatul lool. waaw dafa waaw ndax xamal tax ah, Ndeye. Ah, Balla Ndeye Sane Balla am na fi combat yoo xam ne am na ci blessure bu métti mu bëriwaale te ma Samba xamul ma Demba xamul ñu ñu nekk ak moom moo xam kon suñu la waxee loolu rek gëmul. ñun xam nañu man kay weddiwu ma loolu waaye dama ne léegi bu njëkk ba ak léegi bàll bu léegi ak bàll bu njëkk bokkul comme que wax nga léegi nga ne danoon bële si di ko bëri waale waaye léegi su amee xoos xoos sa dootu bëri c'est normal que làmb moo toll foofu laal fa la toll làmb moo toll foofu xoos xoos doo bëree damm nga bëri ba bàle de bi muy bëri boo ñaa dafa amoon na bële si sëbi barki Serigne Saliou Mbacke billaahi wallaahi taalaahi am na bële eh, si bu saltee victoire jaamu non du salteel dama la jox exemple amoon na bële si si sëbi Ah, waaw te dafoo bëre waale ma xamul ma dem ma xamul. dama lay wax rek. kon kon mën na bëre ak Eumeu Sène kon. waaw nga ne. kon que mën na bëre ak Eumeu Sène. non pourquoi. ah waaw non non. pourquoi non non. bi dañ ko soxla. kon yéen boo ñaar non ko soo déggee déggoo la ma la xanaa. dégg naa ñun xam nañ la. jàmbaar la ndaanaan bañkat la loolu laa bëgg nga xam ko. xam naa ko kay voilà. tey ku ko bàyyiwoon noonu saw moom mun na bëre mun na am blessure di ko bëre waaye loolu moo jeex loolu moo fi jeex. kon sooy amee xoos xoos bu ndaw rek ko ñaanal ko jàmm daal ba ñëwaat ak jàmm. di ñaanal xale yi dëkk Géejawaay yëpp yàlla defal leen jàmm combat yi ñu jëm. Mm-hmm. yàlla may leen ndam ndax xale yëpp am nañu combat. mais da nga seetlu ne depuis euh, bu Père Ball nelawee ba léegi écurie bi amatul stabilité maanaam da gis benn mbër génn fee di xas Ball beneen Ball. waaw ne su doon Aziz Ndiaye dinaa ko tontu maanaam stabilité bi amoon. Mm-hmm. maanaam naan mag baax na jar naa bab si réew. depuis baal la demee ba léegi. écrit bi ku nekk day wax. ñii ngi xasante ñii ngi wax Balla sax dem na ba benn instant nee na demoon sax bu bëggoon door ko amee Aziz Ndiaye. mi ngi sant yàlla Aziz Ndiaye bu nekkee kilifaam. Mm-hmm. yow loolu noo koy dund yow mi nekk si biir écrit bi. waa xam nga tey ma xamal la benn affaire. bul ne gis nga Balla Gaye kilifa la dafa am fu ko yàlla teg ci géejawaay Balla Gaye xale yëpp dañoo war roy ci moom comprendre xamul dax ñuy roy ci moom. mooy mm. fexe li mu fi def ñu def ko comprendre Balla Gaye ñoom seen mag la xale yi Balla seen mag la ñooñu ngay wax noonu ñuy wax Balla yëpp Balla Gaye seen mag la Balla Gaye seen mag la xëy na benn erreur bu ndaw moo amoon rek ku nekk yëkkat sa làmmiñ di wax rek te loolu tubaarikàlla macha allah ñoo ngi ñaan yàlla mu yem fekk jàmm affaire kaw fii sa Balla ngay wax. loolu moo tax ngay wax loolu mais Balla seen mag la est-ce que moom mi ngi jëfee mag du ñëw entraînement mari suñuy bëree du du du du du dem maanaam lu en tant que chef lu mu waree épauler euh, encadrer xale yi bi paase gisoo non man la Youssou Ndour Youssou Ndour moo xale yi ah yeneen xale yi ñoom leen gis ñu si sentir ñu si Balla non loolu lépp foofu tax may wax xam nga Balla ma la Youssou Ndour rek xale yi nga xam ne tey soxla nañ ay conseil ñoo ngi waxtaan ak moom di dégganteek moom di gisante ak moom. kon léegi affaire yi changé na. non ñoom Balla ñoom ñëpp Balla seen mag la Balla ñoom ñëpp Balla seen mag la Balla seen mag la nañ ko ñaanal yàlla defal ko jàmm xale yi topp mag jox ko cër bu mu war a yelloo rek àdduna amul solo loo fi gis dafay jeex ndax tey man ñaan naa yàlla géejaway tey am yeneen ay Balla Gaye 2 ay Lac de Guiers 2 tey ëllëg loolu laay ñaan yàlla biir géejaway te xale yaa nga fa ay champion ñoo nekk biir géejaway tey soo waxee soo tuddee Sa Thiès di gën a fils de balle ah ay ay ñoom ñaabu ndaw ay ñoom caatu caatu euh, daaw dafaal kon xam nga ne sa géejawaay tubaarikàlla macha allah ay révélation ma nga ay ñoom Marley ay ñoom Jackson mm. ah ay champion ñoom géejawaay ah dañ ñaanal yàlla defal leen jàmm rek. Mm. waaw ñu dem nga xam ne moom mooy bi tey samedi. Mm-hmm. Euh, affiche yooyu ñu tëgg. waaw ban analyse nga si def. noo affiche bu neex la. làmb ju neex la vraiment làmb ju neex a neex a neex a neex la Baye Ndiaye tëdd. amat seen tafaatin. amat seen tafaatin combat bu neex a neex combat yi sa topp rek lépp yooyu rek doy na grand combat. combat yi topp rek doy na grand combat. ñëw ma si combat bu mag bi. ah. ñëw ma si combat bu mag bi combat bu neex la ah. non combat bu neex la yow en tant que mbër. waaw mënoo ma analyser combat boo. nga ne combat bu neex combat bu neex la kay loolu ñëpp xam ne combat bu neex la. waaw léegi dama lay laaj benn affaire léegi lan nga bëgg a mokk ndey ku ma nee ku ne mën na daan sa morom surtout. loolu ah, mooy loolu loolu gis na mbër kee na ma analyser combat boobu noonu. ndey kumba da nga may def ndànk. man mënoo yow sànq ma moo tax nga bëgg ma waaxu ah moo tax nga bëgg ma waaw non tey xam nga nday benn affaire moom dama ne la làmb jooju làmb ju neex la ndey kumba loolu laa lu ma wax leen lu làmb ju neex la Eumeu Sène daanaa la champion léegi lan mooy avantage champion la. lan mooy kaw Taphatine. ñooxu ko ñooxu ko rek. xam ne mun moo mu aneer su aneeral loo Taphatine champion la kenn du ko wax nu muy bëree. tey Taphatine daanaan la champion la ku ne xam na li mu mane ku mu kor gisuma la mbaaw. tey Eumeu Sène leen danga mooy affaire bi ñoo ko Tapha Tine fu loxo bu jógee mu jëw jël tànkam te laa mu ji man noonu laa gisee. ah Eumeu Sène Balla nag. kan. Eumeu Sène Balla. waaw kooku lu <laughs> Eumeu Sène Balla loolu jarul nga ma ciy laaj. <laughs> dina ma laaj. waaw loolu jarul nga ma ciy laaj. baal ba yàlla yóbbu ñu seen jàmm loolu jarul laaj. ah bitim yàlla si yàlla yóbbu jàmm. waaw yàlla si yàlla. waaw beneen doo ko analyser ko tamit. bon boobu. <laughs> waaw non bii moo taxaw fi gën a jege si fi mu ne du du du Tapha Tine Tapha Tine moo gën a jege si yéen est-ce ngeen ne Eumeu Sène mooy seen bête noire. dégguma yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm ba nu war a bëriwaat ak moom dégg nga yàlla na ci yàlla yóbbu ak ba nu a bëriwaat ak moom dégg nga ah. mais ba tey mooy seen bête nangu da ngay nangu tamit nag. waaw xam nga sportif dafa war a nangu il faut fair play. waa léegi dee naa la jeexal na wax. mooy seen bête noire moom mooy suñu bête noire. non non du ko wax. pourquoi doo ko wax nekk ku ko. pourquoi nekk ko ku leen daan deux fois kay mu ne man yàlla nañ ci yàlla yu bëgg jàmm ba war a dajawaat ak moom ak moom ba noppi dañ ko xat ma ne dañuy ñaan yàlla dajawaat ak moom laa la wax nii yàlla nañ ci yàlla yu bëgg jàmm yow lan la non non dara non non lu tax nga taxaw naa maay moo nekkoon bête noire bombardier fii lamb ji ku nekk am nga sa bête noire léegi léegi léegi ñun benn. léegi ana problème Tyson moo nekkoon benn noir Moustapha Gueye waaw ñun la benn noir kan yow sa benn noir mooy Xaadim Ndiaye. non ba kee laa lax léegi Balla Gaye laax ne kat mooy. Euh, Eumeu mooy benn noiram comme nu. Balla Gaye nekkee benn noiru um, euh, euh, Modou Lo. kon la nangu kon loolu. kon loolu benn noir. koy nangu amul foofu lu question benn noir. benn noir mooy ko nga xam ne. saa yoo ko retour allé boobu gis ñaata ngeen def aller du war na ñoo du war nañoo ah, loolu de mooy laa deer. Ah, baax na boobu yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm. boobu mooy laa deer n'est-ce pas. yàlla yàlla nañu ci yàlla yóbbuwaat ak jàmm daal laay ñaan man yàlla ñu ci yàlla yóbbuwaat ak jàmm. di gërëm waa États-Unis gépp moo Ndiaye directeur Serigne Madeleine maa ngi koy nuyu ay ñoom Mofal. émission bi jeexul ngay gërëm. ah non samay nit lan. waaw xaaral émission bi jeex nga gërëm. waaw ok euh, Bombardier ak euh, ki nga xam ne mooy Reug Reug. Hmm. combat boobu c'est équitable yow ou waaw euh, xale ak mag la. non su wàllu corpulence beeg taille beeg. ci taille bi ci kan. Bombardier moo macha allah moo ëpp ci ci ci ci làmb ji di. mu bëri ki nga xam ne pratiquement moom ak. Eumeu Sène xaw a toll. waaw euh, Bombardier champion la Bombardier bëri na fekku ne Bombardier ndaanaan la champion la. waaw ah, bien sûr champion la champion li mu def nii dafa nice. jox xale yi chance dafa rafet Bombardier li mu def nii dafa nice may chance bi mu may chance dafa nice. Ah, fenn carrière c'est normal non non c'est dafa yor jikkoy sportif nag su caaxaan jeexee dëgg des barke Serigne ba Mbacke Bombardier jikkoy sportif la Ah. yéen kay waa géej gi yéen a yorewul jikko sportif. kan ci ñun. yéen yoruñu jikko sportif mm. d' accord boo ma jëlee daal xam naa ne jikko sportif bi champion la Reug Reug tam champion la ndaanaan la ndaanaan la tey euh, boo ma jëlee su ko neexoon ne du bëri Reug Reug waaye nag xam ne Reug Reug champion la moo tax mu may ko sens. Mm. di ko félicité tamit ci élément bi mu jógee bët ki dem euh, Reug Reug ndax vraiment loolu mu def na dafa leen ndax ki mu daa ki mu gañe foofu mu sa daal champion la. Euh, vraiment Reug Reug champion la ndaanaan la voilà. ok euh, Lirou ñu wax tuuti ci affaire société ndax nga gisee léegi euh, mbër yi yi dem di immigré ji immigration bi commencé di bëri mbër boo gis mu ne la euh, damay dem damay dem. pratiquement léegi. jeunes yëpp ngi commencé di daal làmb dafa am ku ma am ndey am ku ma amul ndey. bu ko yow demoo. kan. ku am ndey bu ma amul ndey. bu demuloo kon. dem ma fan pourtant yaa ngi toog. dem ma fan. bokkuma ak ñoom as bi xale yi am di tukki di toog su ma amoon as boobu xam nga ñu xam lépp dëgg la dama bàyyi njaboot bu sew. am ñi fi bàyyi njaboot bu sew non dama lay bokkuñu xañ na ñooñu maa leen mag la benn affaire laa xamal mbër yi li ñuy dem di toog ñoom ñoo ko xam ndax da ngay nekk ci làmb ji toog deux ans trois ans bëriwoo. am sooy nekk di taamu kay da doo am benn combat. ñu fay la ci loo xamante tey ji sa mbokk yëpp yëg ko daal daw ñëw comprendre ñu topp di dee liggéey teg ci ñu lay liggéey teg ci loolu nga nga bëre pare loo euh, guddee doo am loo reere yàlla buñ la daan nag faf mu gën a métti soo daanee sax da nga mën a dem woyaani wala nga sàmm mbayaani ah, sa fan si waaye suñ la daanee nga xamu foo jëm balaa caag soo amee gisee bunt boo tukkee dem liggéey nga dem liggéey mais ñi teele seen bopp si yoon bi nag si gaal yeeg. gaal digaluma ko kenn gaal moom wax dëgg yàlla digaluma ko kenn ah, waaye yoonu kii bi Amérique bii. ku mën a bi euh, ku mën a dem ci yoonu aéroport euh, yoonu Amérique bi Nicaragua bii ku mën a dem na dem. boo demee yoonu suuf la di loolu dafa baax non non non Nicaragua moo tane ni yoonu kii bokkul Nicaragua moo tane. Hmm. ndax ni ko vol la. après des yëpp suuf si la. waaw non ay da jël ay ay ay am na bus am na gaal. Ah, no non non amul gaal. am na gaal yow tamit amul gaal. waaye leeru mi amul gaal xam naa ci dara. amul gaal amul gaal bus ngay jël. après at di nga am distance boo xam tamit da koy dox moo tanee gaal yi yi man yee waxuma kenn dugg ci géej gi dem ci gaal yi waaw waaye ku mën a dem nekk yoonu Nicaragua bi demal kenn moomu ko. Mm-hmm. demal. sa combat ak Khadim Ndiaye bi fan la toll. pare naa man bu yàgg. ñoo ngi ci. man combat la nii wala na ngeen di na ngeen di foo wala lan waaye ban la ñuy foo Ablaye Diop xaas ko tëgg maa ngi koy nuyu di ko ziar Ablaye Diop. xaas kañ la am euh, licence. Euh, non dafa jën dafa jën licence moom mooy tëgg làmb moom moo koy tëgg. combat bi kañ la. est-ce que du est-ce que du euh, décembre wala janvier. est-ce que nga tool. waaw ndax te war a sëgg bëri mbër bu naan a ce que. waaw kon combat boobu du taxawul waaye Abdoulaye Diop xaalis bu gën a la may xaalis rek. may leen xaalis. waaw waaw ne leen day taxaw seen combat mais. xam nga ne mos yow mi sax xam naa ne sax amoo licence yow da ngaa renouvelé wu sax sa licence. da wax ay wax yow da ngaa bëri yow yow. xam laa yow sa xaalis dinañ yéene xaalis maa ngi doog maa xam ndey ku mën a ngaa soxor nag yooyu li ma la doon tagg yëpp maa ngi doog xam tey ji ndey ku a ngaa soxor nag ku soxor xaalis am laa jël xaalis dinañ yéene xaalis dafa am xaalis rek yéene leen xaalisam waaw mu comme que yéen ñaa ñu ay waayam ngeen mu ñëw ne leen naa leen combat mais combat boobu du mus a taxaw ndax yéen pourquoi yow amul licence Khadim Ndiaye amul licence ku la mën amul licence ku ma xamul sax renouvelé aussi la kon kon ça veut dire que amul sax waa léegi euh, combat boo xam ne kañ la nga dem ah peut-être décembre ou janvier parce que yow xamuloo sax kañ la combat waaw da nga may déglu attends lamb ji ubbeegul joxe gunu ay date combat bu taxawal avant saison mi tëj ba léegi déedéet combat bi taxawal yàggul yoo xamoo ci dara da ngay noppi xam naa dara di laa xamoo ci dara moom daal taxawal na combat bi man maa la xaw ma si dara xamoo ci dara nga ci xam Abdoulaye Diop si xaar jox leen jox leen avance waaw jox nañ avance bu pare nga ne ma xaw ma si dara non xamoo ci dara ndey wóor na yàlla xamoo ci dara. ndax soo taxee naan combat boobu dafa euh, combat boobu du am sax waaw baax combat boobu combat yii ni nii rek wayaa wayaa nii rek may leen xaas rek ngeen def seen ngeen non si après jeex na ok mais yéen yéen waa xam c'est quoi yéen da ngeen di show wala réellement li ngeen di wax c'est du sérieux sérieux comme comme li ngeen di waxante nii des sax tu as l'impression que da dépasser les bornes waaw ci moom la moo moo ba ngeen tudd sax seen vie privée sax seen affaire jabar ak affaire yooyu noonu pour lan dama ne la en tant que sportif ci moom la moom moo ñàkk fulla mais yow nga tane ko déedéet pourquoi ma koy tane man bu ñëw delluwaat ndax du ma taxaw mu di ma xas wala di ma wax wax bu ñaaw ma di ko seetaan am na wala benn benn wax bi muy wax waaw naan xaw ma lan su la wekkee yéen a yem yéen ñaar d'accord man Khadim Ndiaye moo mag moo tax nga ko tane. waa d'accord léegi nag moom su demee ba taxaw na di ma wax ju ñaaw nag léegi man ma di ko seetaan ma pourquoi. mais nga bàyyi mu sedd. lu wax tax ma ko bàyyi mu sedd mooy kan ba ma koy bàyyi mu sedd. mooy xaarim waaye yow tur sax méritoo <laughs> turam boobu sax méritoo nga yow turam boobu da ko méritoo moom ah moom dafa waroon fu ma taxaw man mu di ma tàgg man di ma gërëm di ma ñaanal. parce que ndax man maa koy boole sama nit yu baax ñu koy teral. ah ñu ko doon teral tey jii am na ñu mu xam ñu bari ñu tey yow doon tudd man maa tax ginnaaw yàlla maa tax moo njaay xam nga ko yow ma nekk Amérique maa ko booleeg moom di ko jàppal di ko defal lu ne. xaw ma njaay ah non xa moo njaay xamoo xamoo ah, ok ah, directeur Serigne Marlène. xaw maa ngi nuyu ma faal tamit ak ñoom euh, Afia Mansour kase ñoom Mor Ndiaye vraiment ca Amérique maa leen ziar bu wér a wér ak sama booy Ablaye Sarr. Mm. voilà mais bi nga tuddee doom euh, doom Balla Gaye bi wax ci coow bi bëri woon na trop. coow li lu muy bari comme lan. sama rakk ma am droit tuddee ko doom ma tuddee ko doom lan la ci coow lu ba ban coow moo ci am ban coow moo ci am. naan pourtant amoon ay mbokk yu war a tuddee pour am tuddee ko. Balla Gaye na ñëw taxaw wax ma loolu. kenn ñëw taxaw wax ma loolu man maa choisir maa sama doom. choisir choisir Balla Gaye tuddee ko Balla Gaye su ma rakk la tamit dama ko amoon mébét loolu bu yàgg mébét bu yàgg yàgg yàgg yàgg laa ko amee woon du léegi de. tey ji man su ma tuddaloon Balla Gaye doom du ma am lu ma neex dama ko rêvé woon bu yàgg daal. dama ko rêvé woon xanaa kon su nekkoon jigéen kon Balla Gaye koy tuddee. ah xanaa kon su nekkoon jigéen Balla Gaye koy tuddee. ma wax sa daal maa sama doom ah tuddee ko Balla Gaye am naa ci waa Balla Gaye laa ma Balla Gaye li mu mérito dafa ko xoo Balla Gaye li mu mérito yëpp yëpp géej waaye la gun ko xoo. xanaa instant lañ ko war tuddee kon. lu ne mérito na ko Bari boobu moo doon ko jël tuddee ko Balla Gaye de. ah Bari waaw. ndax da ko faa liggéey. yow waa Mokar Amadou Bari su la jàpp. non non damay joxe exemple rek. damay ah, joxe exemple pourquoi nga dafa boo xam ne amagul tur. waaw dégg nga d' accord stade Ndiarème ne mën na ko ah, gis nga Ndeye Kumba su caaxaan jeexee dëgg des. barki Serigne Fallou Mbacke Balla Gaye daf ñu liggéeyal géej waaye loo xam ne duñ ko fàtte ba mukk mukk mukk mukk mukk xam nga yow soo waxee yéen mbër daan la mere. yow baal yow géej waay na trop. mais yow baal ak yow baal non non dama waaye ñoom ñëpp samay mhm. ah, rakk la nag mbay la ah yi ñoom ñëpp samay rakk la ay Mathieu Préra waaw Mathieu <laughs> ñaabu ndaw caatu daaw da fall Baye Ma Ndiaye ah xale yooyu ñoom at ah, booy bi ah, ah, ñoom kii nu mu tudd booy bi nu mu tudd euh, baay Ma Ndiaye euh, ñoom digal at at ki gàkku deux ñoom gàkku deux mm. xale yi ay champion lañ te ñoo ngi nekk ci làmb ji nag ñoo ngi ñëw ñoom ñëpp am nañ combat xale yëpp am nañ combat ñoo ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm at kii tamit maa ngi koy ñaanal kii booy bi sama booy bi euh, papa di ko ñaanal tamit yàlla mayaat ko combat ba mu ñëwaat ak jàmm yàlla may ko nam waaw. liiru kontaan naa trop. maa la gën a kontaan di gërëm waa Géejawaay gépp di yoon bi yoon metti woon na trop. lan waaw waaye garaaw yow yaa ma ko jël xam nga nday nee naa la yow suma jigéen nga te lu yàgg dëgg la waaw yow nee naa la bi ngay téye micro di def journaliste ci làmb benn xale bu jigéen amul woon fitu def loolu mu metti woon loolu nga gëm sa bopp takk sa tubay ah nekk ci xu yoon yi di xuus. moo tax keroog bi ma la gisee États-Unis sama xol dafa sedd <laughs> non non yow international nga non du caaxaan international nga day kumba international nga ndax yaa ko fi liggéey. astafurlah non non amul astafurlah dëgg laa la wax yaa ko fi liggéey yaa ko fi liggéey. liir tàggoo. comprendre <laughs> di gërëm euh, waa Guédiawaye gépp hmm? di di gërëm ñoom champion yu fa nekk. mosuma am émission mel nii ñaanal jàmm ak ñoom la dëgër ah ñoom Guy gi ñoom Marley Jackson Alioune Seye 2 xale yi ndaw yi am combat yàlla may leen ndam ku ci mel ni ñaabu ndaw ndigal Gàkko 2 at booy bi Bami Ndiaye 2 ah euh, Mathia Perera at kan xale yi des na euh, kii nu tudd Thiatou Daouda Fall am na combat euh, bu at sama booy bi Marley. tamit am na combat di ko ñaanal ñoom ñëpp xale yi am combat géej wooy yëpp ku ma tudd sa tur maa ngi jégalu yàlla na yàlla may. mais léegi est que bi sax école bi. waaw euh, man maa man ma maa ngi entraîné euh, man. parce que man yow normalement yow coach nga waroon nekk liiru. waaw lu jàppale euh, Lamine Golo. xam nga tey ma xamal la benn affaire soo wax man écurie laa nekk. écurie Waalo laa nekk. ma ne nga dem foofu géejewaay ma moo tax ma ne ma fenn sens interdit waaw moo tax ma ne dama jàppale leen parce que xam naa demoo fi amoo temps pour fee ma ne la man aw ma sa doomu ndey feneen nekk fenn sens interdit waaye fee nga gën a féete waaw non non bul wax loolu man aw fenn sens interdit nga ma doon wax am man maa àggale waaye sama nuyoo comprendre <laughs> ah ñoom gërëm Lat di ko ziar bu wér Lat sama sama sama sama ak ñoom kii Malick Gakko maa ngi gërëm tam Malick Gakko ah Malick Gakko. astafurlah euh, kii nu mu tuddati ñoom Ahmed Aïdara am di ko ñaan nag xale yi am nañ combat ñoom ñëpp. jàpp si ñu jàppale xale yi. vraiment combat yi jëm. vraiment ah, ah, kii Aliou Sall tamit. maa ngi koy nuyu au passage Aliou baax sama xarit la woon nag barke Serigne Sall sa woon su wilaay ba tey la woon ba tey sama xarit ah, la woon sama xarit la woon comme ni li mu nekkee maire te bu doon ni mu doon jàppalee xale yi biir géejawaay mm. comprendre xale yi ku ci am mm. combat da leen doon jàppale. vraiment affaire boobu daf may marqué daal ci moom. Mm. vraiment. ah, ah mais léegi Baye Niang mi ngi fi dina leen jàppale. vraiment di ko ñaanal di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp géejawaay képp ku fa am combat yàlla na la yàlla may nekk autorité nekk géejawaay di leen ñaanal ñu jàppale xale yi di di eh, dem ba Amérique tamit di nuyu ñoo fa nekk ñëpp ma kenn waa sensé ñoom Bas Jëwriñ ah ñoom Jum ñoom Laay Naar. ah ñoom naar xale yëpp maa ngi leen di ak ñoom laat ah at ah, sama booy bi sama sama waa ji <laughs> booy bili maa ngi koy ziar ñoom Mafal ñoom ñëpp maa ngi ziar ñëpp ma kenn ah Mansour Kassé boo Diop ñoom Rasil ak Rama xam nga Rama. Rama tam nekk chez Jacob ñoom bu ah, ñoom waaw maa ngi leen ziar bu wér a wér ak Mati Mati Mati xam nga ko. Mati bu nekkoon Walf. salon Mati waaw salon Mati ku mm. baax ah. vraiment ma sama jigéen la ku baax tamit. Mhm. vraiment di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn ah, moo Ndiaye directeur Chéri Madeleine maa ngi gërëm ñëpp ak sama booy bi Bas téer bu mag ba ak jëwriñ Bas xam nga ko sama boy boobu ndeysaan. man ma xam nag man dama xam ñëpp. xam nga Amérique moo tax ah waa Amérique yëpp bàyyiwuma kenn ak sa sa copain sa sa càmmiñ la booy Matar Mbaye. Uh-huh. Ah, waaw maa ngi koy ziar bu wéer a wéer ñoom ñu ñoom ak ñoom ja ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ak Père Babou mère Asfay mère Asfay maa ngi koy jaale. yaayam ji wàññeeku euh, mère Assou Faye maa ngi koy jaar baax a baax Assou Faye ma ne Cheikh Thiam tamit Cheikh Thiam waaw su ma xarit la ko mere sama xarit la woon waaye dama ko mere moom wax dëgg yàlla. yow koo koo mere moom day sant yàlla yow moom koo mere day sant yàlla dama ko mere moom waaw jërëjëf di leen mm. gërëm waa Bantamba TV tamit ah di gërëm Sénégal gépp yàlla na fi jàmm am Sénégal euh, élection yu jëm yàlla ci yàlla def ndox mu sedd yàlla na jàmm def Sénégal yàlla na fi jàmm sax mm, nga mm. nuyuwaat tamit sa doomu ne Xaadim Ndiaye sëñ Mbacke Ndiaye ci Amérique tam maa ngi koy nuyu baax sëñ Mbacke Ndiaye ak xale ya fa nekk ak ñoom sëñ Mbacke ñëpp waa Amérique gépp waa Sanse bàyyiwuma kenn ku ma tur rek maa ngi jéggul xarit waaw xarit doo ko nuyu. sequma ak moom. ok donc yow maa ngi lay remercier bu baax a baax ah dama la c'est vrai que yoon bi metti woon na trop. te sa euh, am nga rendez-vous am nga rendez-vous bu important mais bon tu l'as raté lépp rek pour ñëw teew si si émission maa ngi jéggalu bu baax a baax après sama pare fi naa am lu mu la jox rek <laughs> <laughs> maa ngi yow noo far émission bi nag soo gisee nag mu muy yem dafa am lu ñu si jàpp kon Mori de wax rek nañoo jàpp si si combat bi su mel ni Babacar Mbaye Thierno Fatima Cheikh Ibra Bamba madame Badji mam Cheikh fii nag moom ay ay ay Baye Fall ka fi am. ah ay maam Cheikh ay Cheikh Ibra ay Thierno ah. ay Binta ah Binta moom kii. ak ki nga xam ne moom mooy euh, Pa hmm? Modou. xam nga Pa Modou moom mooy. xëcc eh, fiili fii fiili su amee Pa Modou xëcc naa ko loolu réagir loolu baaxul. eh léegi réagir dàq nañ ko léegi day xëcc fiili waaw léegi dàq nañ ko. Ah, parce que parce que pratiquement li muy liggéey baaxul daal. gis nga xam nga lu ma neex Pa Modou. yar ba. ak teggin ba yar ba. <laughs> kon nëbb na la boppam nëbb na la boppam de. Ah, kii de li ma gis rek laa wax ah. Eh, kii de moom su meloon neen tam koy wax. ah en tout cas li ma gis rek laa wax. Pape Modou yar bi ma gis moom laa wax su ma gisoon leen dama koy wax. loolu laa xam ci moom Pape Modou xam nga fii ku fi ku fi yarul si technique ah. moom mooy chef technique moom mooy gérer lépp mooy Seydou. mooy gisee mooy ko mi ngi mel ni comme. Euh, xaw ma Seydou man ku ñool la. xaw ma ko Pape Modou laa xaw ma Seydou Pape Modou moom macha allah dafa yaru ah ba xam nga dafa dafa mën liggéeyam daal xaw ma ko de. léegi Pape Modou Pape Modou daal laa xam man xaw ma Seydou de. Ah. laay xaw ma moom xam naa ñu ko war a. dañ ko waroon delluwaat non dafa am feneen fu may dem feneen laa dem ah, ci beneen Gambie waa Gambie waa Gambie dañu xaar ay Gambie yaa ay Gambie yaa def leen fa jàmm rek waaw jàmm am def leen fa jàmm jàmm dem leen si ah, jàmm ñëw si jàmm bu leen tooñ kenn bu leen saaga kenn te Pape Diouf war a woy dem leen def foofu seen face à face yi bi si waat Pape Diouf ndaanaan bu mag ba dafa war a woy hmm. Pape Diouf xam naa fa seen nga fa fecc ay Pape Diouf kenn du moom di nuyu yàlla sama waaja Matar suma teel hmm. maa ngi koy ziar bu wér ok Euh, ak euh, Mohamed hmm, Mohamed euh, gisuma ko si liste bi xam naa si daf kaa fàtte Mohamed tamit ah, maa ngi koy remercier si si si li mu jàpp si émission mu indi ndox yeeg yooyu noonu ah, comme moom tamit loolu mooy liggéeyam ndox yi mais amul problème. Ah, di leen jox di nuyu ki nga xam ne mooy sama yaay mère Sow sama doom Mohamed Diouf. du nuyu ki nga xam ne mooy. Astandine DG Brahma. du nuyu Astandine DG Brahma. Cheikh Khadija Diallo du nuyu Khoudia Seck. Chéri à sec di ñi nga xam ne mooy nuyu Ibe maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa waa New York ah, ñoom Tabara ñoom Terence nga xam ni mooy euh, Aïcha. Mbaye Diop sama xarit ba fàtte naa ko borom New York. waa New eh, eh, dafa ndànk Mbaye Diop sama xarit la borom italiano ak Amérique ak Touba Mbaye Diop. ak sama rakk ja Guèye Ndiaye borom feer yi maa ngi koy jaar sama rakk borom feer yi waaw Guèye pare nga bisimilah. ok euh, nuyu waa Burke Avenue ñoom ñëpp depuis New York maa ngi nuyu dinañu dig daje dig daje ah, beneen yoon si beneen émission sa New York si beneen émission Bantamba ah, TV si a ci mukaay ngeen jëf ma lambaay yaa ngi lambaay birandu baa ngi ci mbul maa jooja dëgën ma ca ngoonan lu rëy la maa jara baax ñoo jara falar ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo di mu